ay lulus lay jaay lulus yi maa ngi koy jëlee Dakar waa ay bal la waa waa ay bal la waaw waaw tuuti rek mu ngi dox tuuti tuuti waaw ñu ngi jaay tuuti tuuti rek waaw damay muus muus mille francs après yi tamit ma jaay par détail waaw waaw ñu ngi ñëw moom ñu ngi ñëw moom mais xam naa vingt-quatre bi daal moo tax génn ñu noonu waa doon nañ ñëw waa doon nañ wa waa waa ndimbal njaboot la moom ndimbal njaboot la vraiment waaye seer seer bu ñëwee fii xam nga lii moom yomb na boo defee 1000 francs nga am mbuus nga def 500 wala 1000 francs am fii xam nga ne kon loolu yomb na wa noonu daal lañ def ah wa nga bëggal sa doom parce que doom nawle la waaw moo tax may faral naan bëggal leen doom yi ndax doom nawle la décor lañ doon jaay pour nawel bi moom lañ wàcc woon waaw presque lépp jeex na li si des ay mbali rek si des ñu koy wanteer waaw ay prix yomb la jaay ay 1000 francs téeméer waaye léegi ni ñu ngi doon jaay ay 100 francs la ñuy wàccee affaire yi bu baax waaw wax dëgg yàlla bu baax a baax moom wax dëgg yàlla. mu ngoog waaw ñu mën a am ñu seet tamit dañoo ñëw fii ñu yombalal leen lépp moo tax ñu lal nii si digg mbedd mi baax a baax waaw. bu yàlla am na yeneen bagage yu pare ñëw waaw bu soobee yàlla. yii 1000 francs lañ ko doon jaay waaye bi ñu demee ba xam ne am na ñoo xam dañuy laajte waaye seen doole dafa néew. ñu jël yeneen yi mbuus ay téeméer pour ñu xam ne pour ñu mën a am waaw sama bëgg motal ko sama doom lan ak lan nga jëndagu euh jënd naa ko ballon ensemble pistolet euh jënd naa ko daal n'importe ay baxane yëpp jënd naa ko pare père nawel mhm. li nga jaay kon bëri na ci xaalis macha allah kay may sama doom ko jaral nag ndax mooy taw benn la ci ndayam c'est normal parce que tey jii da ngay satisfaire sa doom pour en cas ëllëg bu màggee du ñee benn moromam tamit en plus xam rek waaw ah. d'accord xam nga doon waxale sànq ci sole bi ñaata la wax euh ah, en fait mu ne 4500 ma fay ko 2000 té ci wax waxale bi waaw té jëndon day kado ba pare waaw yi ku ci nekk euh na nga soutenir sa doom jàppale ko te tamit euh, lu mbëgg rek ka pour en cas baña moromam baña dugg ci naka sudul parce que tamit yorum lo defal sa dom do ko perte te da ngay ñaan yalla bu magge fay la ko teral la tamit ba nga tedd waaw fet bi mom te ñaan ñi ngi ñëw moom wax dëgg yàlla ngi ñëw ndànk cher na cherul dal waaw commencé na 5000 3500 2000 1000 francs 1500 waaw parents yi moom wax deug yàlla ñu ci jënd ñu ngi ciy jënd moom ñu ciy jënd bu baax tey nag mu xaw a yokk bu tey mu xaw a wàññi moom ñu ngi ciy gis seen bopp ñu ne ñu ngi ciy gis seen bopp laa doon jënd ay manque ay ay ay guirlande ak ay kii pour sama rakk bi moom mooy def anniversaire nii moom moo fi indi woon moom laa doon jëndal ay ballon ay quelque chose yi pour moom rek mooy loolu waaw gis nga ñu ngi si nii rek di jàppale suñu gaay mooy loolu chaque fête rek dañuy soldé wa bagage yi te xam nga bagage yi tamit du bagage yo xamantene bagage ordinaire suñu patron day dem ba turki fa lay jëndé ay bagage ñëw di jaay motax euh, suñu qualité dal nit ñi bëgg nañ ko aw ñi bëgg lu baax xam lu baax ñom dañ fi ñëw joué yépp turki la jógee ñun euh, dañuy jaay ay yupla ay jouer ay spiderman ah ay vélo ah ay ay poupée ah ay poupée Barbie poupée dinette lépp loo soxla daal rek waaw mais yu raar la ñuy jaay yu baax yoo xamante ne ni moom boo ko jëndalee sa doom boo duggee sa kër di nga ne kii fu mu jëndee lii jouet jeex na Moana aussi jeex na ak euh, jouet robot yi tam jeex na vélo yi moom comme ci comme ça rek am na quelques yu fi des daal non cheru ay vélo bi doon jar vingt mille def nañ ko dix-sept bi doon jar vingt-cinq mille def nañ ko vingt mille kon cheratul